الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk jullit yi ñu ngi sant suñu boroom jaamu yàlla foo mën a tollu del sant yàlla gannaaw ba di ngi seede ne moom dong moo yeyoo ñu koy jaamu di fàttali it ne kenn wuru koo jaamu lu dul la yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam jàngale woon ay yéen mbokk jullit ci fan yu néew mi ngi nii tiim ñu gan gu màgg gan gu tedd di shahru ramadan suñu borom subhanahu wa taala tagg ko ne weeru koor day mi ngi noonu moom laa tànn wàcce ca alquran alquran bi nga xam ne mooy njubug nit ñi di leen leeral la nga xam ne mooy yoonu njub di leen textaleel diggante dëgg ak fen képp koo xam ne fekkee na koor gi ci yéen ku fekkee koor gi ci yéen ngalla way na ko woor loolu nag mbokk dafa yey ci jullit heure bu gisee occasion mu daal di cay profito daal di cay jëkkante suñu borom nee na jëkkante ci lu lay yóbbu ajjana day ngalla way aji jëkkante kët ya nañ ca jëkkante tey bi ñu yàlla nattoo li ñuy tuddee promotion da ngay gis ne nit ñi dañ koy waxtaane ah tey de am na promotion bu am solo ci réseau sangam ila axiri mbokk nañu xam ne promotion des promotions mooy lii nga xam ne moom i tiim di chahru ramadan suñu yenente sallallahu alayhi wa sallam daana wax xam leen ne suñu borom day am na occasion ñu muy ubbil jaam yi di leen ci yërëm fu ngeen toll nekk leen ci jaamu yàlla di yaakaar yàlla déppale leen ak occasion boobu ca mbokk loolu bokk na yiñ ci gën a yaakaar muy cheru ramadan yàlla nañu boole ci ñamuy ubbil yërmande mbokk julit weeru koor day dañ ko war a teeroo nañ koy teeroo it ay bind yu bari la doonte ne tànn nañ ca luy tolloo ay fukki bind lu jiitu mooy yow julit nga la way xamal ni danga war a ñaan yàlla boole la ci ñi fekke weeru koor wallahi am nañu bëri ñu ko waajaloon faatu nañu suñu bisu tey bi am na ñoo xam ni faatu nañ lu ko jiitu am nañuy faatu gannaaw ba avant weeru koor loolee kenn ci ñun sikk sàkkuwu ko kon ñaanal yàlla mu fekkee la la weeru koor ñaan yàlla googee ngay fekke weeru koor day moom moo nekkoon taxawaayu sahaaba yu jëkk ya ak nit ñu baax ña ndax mbokk ñaan day jaamu yàlla la comme na ko yonente bi alei salaam waxe doomu aadama bi li ngay ñaan jaamu yàlla la la ngay ñaan pour def ko boo ko deful it ak jaamu yàlla la bu lay ñeel su la yàlla déppalee nga dajeeg weeru koor nga ñaan yàlla subhanahu wa taala defal la ko weeru jàmm defal la ko weeru ngëm defal la ko weeru mucc ca mucc ga jiitu mooy mucc ci pexey seytaane ak sa bakkan waaye mucc ci tolof-tolof ci àdduna defal la ko weeru jébbalul yàlla defal la ko weeru dëppoog la yàlla gërëm gannaaw ba it nga xamal ne weer bi kat ab jaam la buy dox ci service boroomam yow it nga war a dox ci sa service boroom mbokk bii la yonente bi alayhi salatu wasalaam wax bokk na ca ñaari lu mbir mi bu la yàlla subhanahu wa taala demee nag nga dem ba dugg ca weer wa ay la nga doon ñaan yàlla defal na la ko war ngaa bég war ngaa sant yàlla ana ñaata nit nga àndaloon daaw di woor tey ba ñu faatoo kenn xamul kan lañu te bu ñu leen laajoon tey luñ gën a bëgg ca seen bàmmeel yooyee mooy dellusi waat jaamu yàlla rawatina jaamu yàlla ca weeru koor kon mbokk loolu nga war caa sant sa borom jalla wa ala gannaaw loolu itamit mooy loolu yi nga daal di cay bég comme na ca yonent bi alei salaam doon bége la sahaaba ya mu safaanoog lu bëri ci caamin yan njaay yéen yi nga xam ne dañuy compter bis yi koor gaa ngi ñëw koor gaa ngi ñëw mbokk koor dañ ko war a yàkkam ci dañ ko war a bëgg rasul salallahu alayhi wa sallam danaan bégal sahaaba yi ne ah weeru koor day mi ngi nii ñëw na di weeru barkeel yàlla dana ubbi bunta aljanna yi dana tëj bunta sawara yi may na leen ci guddi gu gën junni guddi képp koo xam ne perte na ko day dëgg-dëgg kooku mooy ka nga xam ne mooy ko perte dëgg-dëgg mi ngi noonu xadis boobu imam ahmad solo na ko su ko defee yow bokk na ci it nga dogu ci ne koor gii day fas yéene na mboole mi bëccëgam mboole mi guddeem fas yéene naa koo def ci jaamu yàlla lépp luy mooy yàlla day xalaatuma ko loole da ngay gis ne ah dogu googee ngay dogu dëggal googu ngay dëggal ci sa xol suñu borom yàlla mën na la caaw yi fekk la ca benn sahaaba daa ñëw fekk yonent bi salallahu alayhi wa sallam ci xare uhud mu daa di ñëw ne ko man day tuub naa daa di ah jaam ngire jaamu yàlla jalla waala bi ñu xare ca xare yañ doon xare am na ko yonent bi doon bëgg a jox mu ne ko déet loolu yëkkati wu ma li ma yëkkati kay mooy jihaat ci yoonu yàlla ba bis yàlla mas naa may benn xeet buy jaar fii génne fële loole mbokk yàggul dara ñu am beneen xare gaa yi dem fekk ko fa mu daanu am na xeet bu bëtt put ba jàll yonent bi alei salaam ne ah kii day dëgguwoon na digganteem ak boroomam suñu borom yàlla subhanahu wa taala daal di dëgg digganteem ak moom loolu moo yonent bi alei salaam waxoon it ne sama suñu borom nee na bépp jaam boo xam ne dogu na ci def benn mbir mbir boobee dañ ko ko defal na doon def na ko defu ko lépp loo xam ne ak jaamu yàlla la bu yéene woon ci weeru koor ba dogu ca yàlla dogal ba weer wa ñëwee sa kattan mayu la ko wala sa mën-mën mayu la ko wala sax nga dee wuute ko teewul loolu yàlla dala koy bindal waaye mbokk julit it xam leen bokk na ne wa gën a war ci weeru koor mooy bala ñu ciy dugg ñu jéem a laaj ana lan mooy atte yi nga xam ne moo ci aju mbokk ay farata xawma nekkul lay ci ñàkk farata li yàlla faratal ci yow ku ne da koo war a xam suñu borom yàlla subhanahu wa taala moo ne su ngeen xamul laaj leen ña xam loolee kon ku ne suñu war caa bàyyi xel xamal ne ci tënkal la rek weeru koor boobu am na ñeenti ponk ponk bi jëkk bi mooy weeru koor kan mooy woor ki nga xam ne weer bi dafa nekk farata ci moom mu war koo woor mooy jullit bi nga xam ne dafa majeur jullit bi nga xamee ne nii tukkiwul kiy tukki yàlla may na ko mu dog jullit bi feebarul ki feebar yàlla may na ko mu dog julit bi nga xam ne àndul ak règle wala dereti wasin ki ànd ak règle wala dereti wasin wur ko woor kon kooku moom la ñuy tudde assaim di ponk bu jëkk ba ñaareelu ponk bi mooy yéene doomu aadama bi xëyoon fajar ba vingt deux heures lekkul naanul ca yéenewul daa woor loolu kenn du ko considéré woor ñetteel bi mooy la nga xam ne mooy jàpp ca la nga xam ne mooy dog koor mi ngi noonu ñeenteel ba mooy diir bi nga war a respecté mooy avant fajar di xar ba baa jant bi di so ñeent yi mooy ponk yi ëmb koor nga xam ne ki ko respecté mënatuñoo wax sa koor yàqu na amma bu dee ne lay yàqu koor loolee mbokk julit nañu xam ne la ca jiitu gën caa grave mooy la ñuy tudde ak sëy sëy boo xam ne diggante jëkkër ak jabar la amma nag sëy boo xam ne diggante ay ñaari jaambur lañu kooku moom ci alkaani yi gën a garaw la bokk ndax bu dee ki ànd ak soxnaam dañ naan ko yow kat war ngaa woor ñaari weer yu tegaloo wala nga goreel jaam wala nga leer juróom benn fukki miskin ki ak ki ànd ak njaaloo moom waxuñu ay waxam bokk na ca ñaareel ba mooy nga génne sa mënu yu fekk yaa ko tey mi ngi noonu donte ne loolu gannaaw yàqu koor moom it ci bakkaar yi grave la bokk ci luy mën a yàqit yaramu doomu aadama la bokk bokk na ci lépp loo xam ne day remplacer lekk ak naan ca perfusion ya ngay jël ak lépp lu mën a taxawe wàllu googe bokk na ci mbokk bépp jigéen bu wooroon ba digg bëccëg réglam génn wala déreti wasinam génn loolu yi koor ga yàqu na loolu yi lii borom xam-xam yi dëppoo nañ ci am na ca ñaar nag yoo xam ne wuute nañ ca mooy ki nga xam ne dafay doon dem di maye deret ni mi ngi noonu wala koo xam ne dafa waccu fekk moo ko tey ala kulli xaal yii mbokk ñu bàyyi ko suñu kentaleel kattan gannaaw ba it mbokk ñu nit ngalawaay weeru koor dafa war a nekk weeru occasion doogu ci tuub say bakkaar doomu aadama yu bari yàlla nattoo na leen ay bakkaar ba wallahi da ngay gis ñu ñëw naan ñaanal ma man yàlla daf ma nattoo carte bëgg naa koo bàyyi waaye bu ma koy def du ma ko tey wallahi gis nga xam ne naan ñaanal ma bëgg naa bàyyi sàngara bëgg naa bàyyi tux cigarette ila axiri waaye ngalla waay yow mi yàlla nattoo ci bakkaar yu bon yooyu dogul ci weeru koor weeru koor gii di ñëw day fas yéene naa bakkaar bii moom du ma ko ci def mukk fexeel xeex ci sa bakkan yàlla mën na laa suturaal ba weeru koor ba passé nga man faa doxe bàyyi ko ba faw mbokk kiy tuubul ci weeru koor xawma ban occasion moo koy mayaat mu tuubaat suñu borom yàlla jëlla wa ala mi ngi ñuy woo ay yéen julit ñi tuub leen tuub gu sell lool de bu ngeen ko defee yàlla mën na far seeni bakkaar tabbal leen ajjana ya nga xam ni ma nga fay daw ay dex la gën a yey ci lu ñuy tuub mooy bokkaale aku kéeféer la gën a yey ci la ñuy tuub mooy bidaa la gën a yey ci la ñuy tuub mooy bëgg ay nit ñu bon loolee mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax sa xol bii mooy la gën a am solo ca la ngay siq ak sa borom borom bi nee na yowma alqiyaama mi ngi ñëw ma yowma la yanfau maalun wala banuun illa man ata allah illa man ata allaha bi qalbin salim bis penc mi ngi ñëw di bis boo xam ne alal ja nga fàggu woon ci àdduna doom yi bari ya du la mën a jëriñ lu dul koo xam ne dafa dikkal yàlla ci xol boo xam ne xol bu sell la ay yow mbokk jëriñ mi teeru weeru koor gal la waaye teeroo ko it ci lépp loo xam ne fas yéene nga ko caa def nga sellal sa diggante boroom ci ne yàlla dong nga ciy sakku la nga xam ne mooy ak fayam sakkuwu ci leneen ca mbokk loolu la borom bi di wax ne ki yaakaar dajeeg boromum ëllëg mu fay ko lépp lu muy def na baax waaye nag bum ca bokkaale kenn xam leen ne mbokk jëf yi day moog jëmm yi ñoo yem dafay am ruux ruux googu mooy tax jëf ji doon lu baax ñu ne na doomu aadama heure bu ruuxam génnee lu ñuy xalaat mooy nañ dem suuli ko jëfit noonu la mel moom la yonent bi alayhi salaam daan wax ne ki taxaw weeru koor day ànd ak ngëm yàlla ànd ak yaakaar payug yàlla kese yàlla dana ko baal mboolem lim jiitaloon ci ay bakkaar mbokk weeru koor mooy weeru ubbi page bu bees digganteem ak noonee say way jur lañu sa njaboot lañu say jege ñaale lañu digganteeg société bi yépp fexe doon koo xam ne kuy jëriñ société bi fexe kuy fegal solor société bi yonent bi salallahu alayhi wa sallam daan ñu wax ne xam leen ne ki gën ci doomu aadama yi mooy ki nga xamee ne nii moo ëpp njëriñ ci moom ci ñoom nga moytu lépp loo xam ne day jur noonoo sa diggante ak ñoom ñi ngi jóge léegi ci weeru chaban ñi ngi nekk ni di dund weeru chaban weer wi nga xam ne a rasul salallahu alayhi wa sallam daana wax suñ demee ba nisfu chaban suñu borom dana xool jaam yi jéggal ñépp ba mu des ña nga xam ne dañoo noonoo loolu kon bokk weeru koore ngi noonu di weeri defaraat diggante yi looloo tax a rasul salallahu alayhi wa sallam daan wax même bu nit jógee fa la tooñ la sax nar laa indil histoire yow wax ko man dama woor mbokk weeru koor mi ngi nii nekk weeru occasion jege doomu yàlla yi subhanallah jege jaami yàlla yi jëmale leen ci yàlla la gën la ngay defal jaamu yàlla yi mooy digal leen lu baax tere leen lu bon wallahi moo gënoon nga jox ko chegu un million waa ji xamul woon lu baax nga fexe jàngal ko ko ba mu xam ko mi ngi noonu moom de daawul dem jàkk nga naxanteeg moom ba muy dem jàkk daawul muuru nga naxanteeg moom ba muy muuru musul génn zakat nga naxanteeg moom ba muy génn zakat wallahi looloo gën lépp loo koy defal waaye gannaaw loolu yi tamit mooy ñu góor góorlu taxawaat ci sunu wàllu bopp ngalawaay xam leen ne yonent yàlla bi moo gënoon a tabe ci lu yàlla bind waaye itamit tabem googu daana gën a feeñ heure boo xam ne ni jibril dikkal na ko te jibril daana ko dikkal guddi gu nekk di jàng ak moom la nga xam ne mooy alquran loolu kon chaque guddi yonent bi alayhi salaam du daan saraxe ba sahaaba yi dañ naan wax moo gën a tabe sax ngelaw lu riddi ay lépp loo xam ne yor na ko mu gis ne ay jaam soxla na ko da koy yëkkati mu jox leen mu ñuy jàngalit ne weeru koor mbokk mooy weeru jege téerab yàlla bi suñu borom bam ñu koy dogalal da ko lënkaleeg alquran jege téerab yàlla bi dem ca guddi ca jàkka ya ànd ak mbooloo mi di ko julli jege téerab yàlla bi change portable yi ak la nga xam ne mooy téerab yàlla bi di ko jàng ci kër ya waaye jege téerab yàlla bi fañ koy leerale ngan la way nga jege foofee te xam ne loolu mooy la gën a màgg la ngay jëflante ak moom ca mooy fexe ba xam lan la téerab yàlla bi di wax falilahi alhamd jàkk bi diggante takkusaan jëm six heures et demi ci bëccëgu weeru koor yépp su ko yàlla jàppandalee dana am tafsirul quran bu fi am yal na yàlla jàppandal ko ca nangu ko waaye gannaaw loolu it bokk julit xam leen ne def lu baax ci weeru koor lépp ca baax azaka boy génne yére boy maye ndimbal bu mu mën a doon waaye nag ca baax googee am na lu ci gën a baax ca mooy la yonent bi salallahu alayhi wa sallam doon wax ni képp koo xam ne nii day da ngaa fekk waaju wóoroon nga may ko lu mu doge yool ba ma am ca koor ga yàlla dana lu ko bindal képp ku fekk kuy génn dem di jihaat nga daal di koy jox moyen yum jihaate loo am ca jihaat yàlla bindal na ko loolee mbokk xadis la bu wér boo xam ne ña gën a wéral xadis wéral nañ ko bokk na ci cheikh nasruddin albani loolu it moo tax ba nga la waay nañ góorgóorlu ci weeru koor lépp loo xamee ni ne man nga ko ci defar ay ndogu di jox jaami yàlla ya ngal la way def ko dafa jëm ca jàkka ja wala ca kër ga la wala lum mën a doon bul xeeb dara ci lépp loo xam ne dañ koy jël ci sa alal di ko jox jaamu yàlla yi ngiree ñu daal di koy dimbali ko ca la nga xam ne mooy ndogu yooyee yonent bi alayhi salatu wasalaam daanañu wax ne xam leen ne jëf yi ngeen di def day bokk naa ba ca gën a neex yàlla mooy mbir moo xam ne da nga koo dugal ci xolu mbokkum julit ca dara nekkul gën a nekk mbég ci julit mooy nga war ba ngoon sa loxo jutul sa gannaaw waaye nga am mbokk julit yoo xam ne nii defaral nañ la ndogu nga man caa ndogu mbokk loolee jaamu yàlla la goo xam ne kenn xamul nu mu toll mbokk weeru koor a ngoog nañ ko waajal ci suñu xol waajal ko suñu jëmm waaye waajal ko ci suñuy poche ca ngal la waay bu ñu ragal ci yàlla ak ñàkk rasul salallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na amul benn bis boo xam ne dana fenk lu dul yàlla dana yónni benn malaaka buy ñaan suba ba ngoon allahuma ati munfiqan xalafa ay yàlla sa bépp jaam bu jël ca lëng ca wërsëgal daa di koy joxe ngir sàkku sa ngërëm ay yàlla yàlla na nga ko wuutala lu gën loolu loolee moom mooy la nga xame ne nii moom la yonent bi alayhi salatu wasalaam daan wax trésorier ba di bilaal naan ko ay bilaal dépenser boo ragal ci yàlla yàlla dana wuutal lii mbokk da ngay gis ne ay bind la yoo xam ne jàpp nañu ne bokk na yi gën a am solo yoo xam ne képp ku ko waajal ci sa xol incha allah teeroo ko weeru koor da nga bokk ca ña nga xamee ni nii seen yii ne yàlla dana ko nangu imma fekk nga weeru koor def ca la nga yéene woon wala imma fekk imma fekk woo ko it la nga xam ne mooy yool ba moom dana la ñeel yàlla bi nga xam ne mooy suñu borom di borom weeru koor yàlla nañu yàlla boole ci ci jaamam yay fekke weeru koor yàlla nañu yàlla boole ci ñi koy dund na ko yàlla gërëme yàlla nañu yàlla boole ci ñi nga xam ne dana leen nangul weeru koor bi ñëw yàlla na nekk weeru xéewal ak jàmm ci ñun yàlla na nekk weeru bu yàlla y tegge tiise ci mboolem julit yi nekk ci kaw suuf yàlla na nekk weer bu yàlla subhanahu wa taala di toroxal yéefir yi delloo leen gannaaw yàlla na yàlla teggil ñu suñuy tiis saafaral ñu suñuy jàngor daal di ñuy barke doylal suñu borom yi alal woomalal ñi nga xam ne dañoo ñàkk ci ñun boole suñuy xol ci la nga xam ne ci la ngërëmam nekk allahuma rabbana atina fi dunya hasana wa fi lakhirati hasana wa qina azab النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين